maa ngi leen di gërëm euh, tey dañu génnoon di xool di saytu euh, liggéey bi nga xam ne gouvernement bi daf ko daf ko jagleel Touba ak euh, Mbacké si wàllu assainissement mooy réseau d'évacuation eaux usées ak station d'épuration yi ñu yi ñu installé biñ ko defee ñu boole si ñëwaale fii si situ université future université bu Touba pour xool liggéey bi fan la toll surtout ñu xam ne problème assainissement euh, dina fi am parce que euh, liggéey bu toll nii il faut que ñu xool nakal si aménagement yi na nañuy prévoir euh, fi ñuy war a def raccordement ak ak réseau bi waaye comme ni ma ko waxee sànq préfet département Mbacké la maa ngi doog a ñëw donc baaxoon na même bu fekkee ñëw naa fi benn yoon ànd ak ay ministre baaxoon na ma sol sama dàll ñëw fekk fi entrepreneur bi nga xam ne moom nañ jox liggéey bi ñu nit ñu ñu xoolal suñu bopp fan la liggéey bi toll ndax liggéey bi euh, naalu sëñ bi la waaye mën nañu jàpp ne naalu gouvernement bi la aussi ndax président de la république ba mu fi jaaree euh, moom si boppam wax na dina def kémtalaay kàttanam ba nga xam ne gouvernement bi li ko si war Euh, mu def ko si moo tax ministre bëri di fi jaabante donc ñun bu ñu nekkee ndaw état baax na de temps en temps ñu ñëw xool fan la liggéey bi toll ak lan nañu jàpp ne buñ ko jëlee buñ ko jukkee ci kàddu entrepreneur bi ak ñi nga xam ne ñoo yor université bi yëpp lan nañu jàpp ne war nañ ko gën a jottali encore gouvernement bi pour que li nga xam ne war nañ ko fi def ñu baral ko te loolu jàpp nañu ne si wàllu assainissement réseau bi ñuy defar déjà wax nañu sànq ne euh, fi réseau bi commencé euh, jigéen na soriwul université bi bu fekkee nag loo xam ne euh, dafa laaj beneen liggéey bu gën a diis que raccordement kooku aussi dinañ ko jàllale gouvernement bi nga xam ne lu ñu si war a jël comme matuwaay rek dinañ ko jël si nu mu gën a teele non liggéeyu fii moom euh, si évolution état exécution travaux yi ni ñu ko jàppee woon ak li ñu gis parce que man euh, bi ñu fi mujjee jaar ak ministre de l'intérieur de l'enseignement supérieur defe naa matagul ñaari weer waaye la ñu gisoon ak li ñu gis nii gis nañu ne euh, liggéey bi euh, mi ngi avancé bu baax euh, moom sax entrepreneur bi posé naa ko question laaj naa ko ba xam am na délai bu ñu joxe woon def naa vingt quatre mois yi ñu waxoon ku gis nii si ñi xam bâtiment ni muy doxe ñu bëri fii wax nañu ne ah fa mu toll vraiment am na avancé dañuy ñaan yàlla rek yàlla gën a gën si def yiw ba nga xam ne euh, gaawaay boobu dara du ko gàllankoor ndax pas-pas baa ngi fi ñëpp ñi nga xam ne ba ñu déggee kàddu sëñ bi bëggoon nañ ko si dugal bëggoon nañ si dugal seen loxo defe naa ñoom ñëpp ñu ngi euh, ñi ngi euh, béral seen seen pas te gouvernement bi aussi bëggul des si ginnaaw moo tax ñu ñu ñëw fii vraiment xool également fan la mbir yi toll voilà jërëjëf